ñun dañoo taal oto yi di campagne waaye nit ñi ñun dafa mel ni ñoom ñoo ñuy campagne <laughs> waaw campagne da daan jaar ci marché bi pour nit ñi waaye fi mu ne boo dajee ñoom dañuy yëkkati seen alal di la ko jox di la jox ay tàndarma boole ceeg mbégte miñ ñuy teeroo fépp fu ñu jaar di xëcc nit ñi naan leen jërul woon ngeen di ñëw Sénégal yëpp jóg taxaw ngir lan projet bii. te ndaw ñi nii ñu booloo yaakaar du tas ñi ngi wax ne président Macky Sall na nga xam ne sa ndaw yi réew doyal nañ ci yow sëkk ak lépp lu taq ci yow benn procès moo fi taxaw muy bopp président Ousmane sonkoo te président Ousmane Sonko duñu ñu wor du kàcc te kii mu ñu joxoñ dama ne Sonko wallaay da ngay jaay gor waaye Basiru dina la fay ba wis la loolu nag waxin la Bassirou dina ko fay ba wis ko Bassirou jommay fay lii nga xam ne moom lañ ko fas yéenee jox na leen wóor ne président Ousmane Sonko lépp ci loxoom lay mujj te lépp daf koy def ngir lan rawale procès bi mënoon naa tëdd na man kese la chaque jour bu ñuy xeex moom rek buñ koy xeexal bu ñu xëyee dañuy dal ci loo xam ne dañ naan waaye kii kii kii kii kii man parfois sax ma ci ne kii wàllu la. waaye da ngay xam ne kii ci ñi yàlla defar la pour ñu war a defar Afrique loolu nag ngaa ko du ko gëm ku soxor du ko xam ku kenn xamul fu mu jëm du ko nangu gis nga kilifa yi nga xam ne ñoom lañ àndal lii mësul am ci Sénégal ñoom dañoo innové Cheikh Bara Ndiaye da nga koy gis muy dox ba yàgg yàggaayu mën na leen yàggaayuwul musique bi de vision bi boo ko xamee ba xam dëgg dëgg la ca biir dafa xam ne ñi ngi xeexal suñuy sët dafa xam ne lii ñuy nekk du ay caaxaan day dëgg nga gestu gis Cheikh Omar Bamba Diop nga doxal gis maam Paate imaam Dramé xoola si mii mënoon na ne mën naa toog Amérique dama bëgg ngeen xam ne nit ñu waaye di du taxawuluñ lii président Ousmane Sonko dafa dem ci kër xool ña fa gën mu jël leen taqale leen ak procès bi loolu nag mooy ndaw ñi képp ku ànd ak président Ousmane Sonko yaa gën ki àndut ak moom te loolooy dëgg de. ndax Sonko dafa bëgg réew mi moo tax bu leen tiit bu leen yox yoxi bu leen ragal ñu fëkkës te bu kenn sàcc suñuy élection bu kenn njuuj njaaj nañu jëli carte yi victoire premier tour ñu fal Bassirou Diomaye Faye jaa ngeen jëf gaañi Badou Lade Badou Lade bismillah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 Island New York Prophet Muhammad Day in America ñu ciy woo mbooleem jullit yi